na la mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu saat yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax ñu mën a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 رحمة ngir bis bi kon ñu jox la kàddu gi nga jottali ko sëñ mbooloo mi nun ñëpp nag ñu daal di ànd déglu Cheikh Mamadou Bachir moom Serigne Abdoul Khadir ci turu magam ju baax ji ak lim ko yónni ci yéen bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa man tabiahum bi imanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddin wa radiallahu taala an cheikhina wa murshidina mawlaana al abdil xadim wa an jamici mansuubihi min al ahli wal atbaaci wal ahibaa ashaab asamaa al mashaayix wal ulamaa maali wasiiri daaxiliya wal wafd al muraafiqa lah ashaab asaada assufaraa wa aadaa assilki diplomaasiyi al muctabari bi Sénégal ashaab siyaada al ixwa fi llahi wa fi l iraada ayyuha al xaflu al karim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa baadu fa bismi alxalifati al aam liltariqati almuridiya alcheikh mohamadin muntaxa mbake xafidahu llahu taala wa raxaahu wa zaadahu wa zaada min nasrihi wa tamkinihi yatiibu li an uwajjiha ilaykum haasihi alkalima shaakiran lakum wa munawwihan bi juhuudikum almubaaraka wa mawaqifikum annabila wa tadxiyaatikum almuqadara bi munasabati alixtifaal bi thamin ashara min safar fi haza al aam arbaatin wa arbaina wa arbai mia wa alf min alhijra hadihi almunasaba almaymuna allati nuxyi biha sanawiyan dikra alxayba albahriya li mawlana wa wasilatina ila rabbina alcheikh ahmad alxadim xalihi akbar ridwanillahi albaaxi alxadim fa jasaakum allahu xayran ala haasa tafaahul alaxwi alijabi allati qad akkada min jadidin fahmakum alamiq wa tatbiqakum aljamil lilmaani alkarima fi qawlihi taala innama almuminu ixwatun wa fi qawlihi jalla wa ala wa taawanu ala albirri wa taqwa faqad saahama kathiran wa biwajhin musharraf ala injaahi haasa alxadasi alazim allazi amara bihi alcheikhu alxadim shukran lillahi ala nihami alkathira allati saaqaha allahu ilayhi bisababi mihnati tagrib allati ibtadaat fi misli haza alyowmi qabla nahwi thalathina wa miati sana wafaqakum allahu taala lima yuhibu wa yarda assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ci turu ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak ci ndigalam yàlla na ko fi suñu borom bàyyi mu yàgg lool sàmm ko mottali mboolem am yii ay yéenam ci lislaam ba mboolem li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu liggéey ko ni mu ko bëggee ndax kilifa la gu mat kilifa goo xam ne yàlla suñ borom def na ci moom xabool Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne wa min saadati lfata xaytu xasat allaa yuradduhu fa aadu sir asat Cheikh Mouhamadou Mountakha nag suñ boon defal na ko taw tawféex xol yëpp maase ci nongol ko li yàlla def ci moom loolu nag la jiit ci la ko ko may mooy jëmmam yëpp doo koy jël jox ko yàlla jël léppam jox ko siñ tubaa bëggut dara ci àdduna sëriñ bi nag daana wax nit ñi képp ku bokkutoo ñu ak bëgg rek seen xole yàlla da ko def ci moom kon ñu ngi koy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér kàddu yii nag muy bàyyi ko ci ndigalam kon ci kilifteefu jataay bi nga xam ne sëriñ i Isaaxa Mbàkkim Cheikh Mahoudou Basir mi nga xam ne sëriñ bi moo feebal mu ànd ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp ñëw teewal ko fi sëriñ bi kon ak mboolem Cheikh sëriñ ak mboolem taalibe sëriñ Tuubaa yëpp. kon ñu jottali kàddu yi ci ndigalam kàddu yi nag li ci jiitu mooy sant leen gërëm leen yéen ñëpp ci seen teewaay ak seen taxawaay ci bisu Serigne Touba yi ñuy dugle woon ngir ñu dugg ñu du ko ci santale yàlla ci xéewal yu rey te baru te bari te yaatu yi mu jële woon ci nattu bi nga xam ne mi ngi leen fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar si jilee kon yal na leen yàlla fay jasa al xayri wa xayra jasa sëriñ bi nag nee balaa dugg ci kàddu yi day ñaanal rek mboolem taalibe yi nga xam ne bàyyi ko ne seeni kër ngir màggal si bisu sëriñ Tuubaa bi yàlla suñ borom moom leen ci yoon wi ñooñu nag nañ xam ne shahid lañ shahid na koo ko ko def da ngay boo faatoo rek àjjana ngay jëm kon wala taxsibanna liseen qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun bal axyaun inda rabbihim yurzaquun farixiina bima aataahu llahu min fadlihi wa yastabsiruun bi liseen lam yaxraqu bihi min xalfihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxsunuun wa man yaxruj min baytihi illaahi wa rasulihi summa yudrikuhu l-mawtu faqad waqaa ajruhu kon ñoom ñoom nañ xam ne seen tuyaa bàgg na kon sëriñ bi ne yàlla na suñ borom yërëm leen te xaaril na àjjana te dajale leen rek seeru sëriñ bi nga xam ne moo leen taxoon jóg di sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu nee na mi ngi yëkkati gën jaarafeti ndiyoo di ko jëmale ci ñu mu bokkal lislaam ji bàyyi ko ci këri diine yi ak kuréelu lislaam yi ak seen ndaw yi fi teew yëpp bàyyi ko ci biir réew mi ak bitim réew di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ak seen taxawaay bu rafet ci bis bi sëriñ bi nee na mi ngi nuyu délégation bi fi bi fi teewal njiitu réew mi di président Macky Sall ci njiital ministre de l'intérieur Antoine Diome ak mboolem délégation bi mu àndal yëpp di leen sant di leen gërëm bu baax ci seen teewaay ak mboolem ñi mu àndaloon di saytu luy yéwénal màgget gi te moom mu nekkoon ci seen bopp di yóbbante ci moom ak cant ak ngërëm ni mu ko ko waxee ci làmmiñam ndax yàlla mi dogal moo leen boole jamono xam ne it yéeneem ci moom ak cofee ci moom kon mi ngi koy ñaanal suñu borom dëgëral ko te sàmm ko mu mboolem mu àggale ay yéenam di nuyu bu baax mboolem ambassadeur yi fi teewal seen réew rafetlu seen taxawaay ci diggante Sénégal ak seen réew yi ñu fi teewal di nuyu bu baax mboolem ñi yëngatu ci luy defar am réew aku askan. di nuyu bu baax itam mboolem yeneen formation politique yi fi teew lépp yi fi teew yëpp di nuyu bu baax mboolem ñu jottali li fi xew ba ñëpp mën cee jot. ak fu ñu mën a nekk di gërëm bu baax mboolem ku dugal sa loxo ci màggal gi ba mu mel ni ko sëriñ bi bëggee woon di nuyu bu baax ñu bokkal bis bi di képp ko yaakaar sëriñ Tuubaa ginnaaw ginnaaw cant ak ngërëm ak nuyoo yi mu jiite nag mi ngi ñëw ngir fas yéene yëkkati kàddu yi laabirante jëme ko ci ñu seqal diine ji ak réew mi di jox ndigal ñi mu sañ digal sañ leen tere te mooy njabootu Serigne Touba gi nga xam ne loolu mooy buum gi leen lëkke ndax ab taalibi kat Serigne Touba wax na ci lii melokaanu taalibi ndax la wax mooy sifaatu saadixil muriid bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw faxtiraar assidqu fi mahabbati seyxi abat summa imtisaalu amrihi xaysu warat nee na képp koo xam ne nee nga amuri saadix la bu dee dëgg ci yow boo xoolee boo melokaan yii mu nekk ci yow na na la wóor ne sag murit wér na waaye bu ca lenn manqué rek na nga xam ne sag murit wérut yaa ko wax waaye Sëriñ Tuubaa jàpp ko la ci jiitu nag mooy dëggal ci sopp su sëriñ ak lum la digal nga def ko lum la tere nga bàyyi ko wa ba ca resit mooy bañ a diingat sab sëriñ donte ci sam xel la ba ca resit mooy wa ma hawa salbul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari kon nag sëriñ bi wax na ne nañu xam ne loolu mooy buum gi lëkkale taalibe yi ak Serigne képp koo xam ne def nga loolu wala mandarga yooyu nekk cew yow xam ne sag taalibe wér na ku ko deful nag Serigne Touba daan di wax nit dana ma tuddoo te bokk ci sama njaboot boo nañ jàpp ne loolu ca la bokk la ci jiitu nag mooy li nu bokk nu julli ji te nu war a taxaw temm def suñu jitte ci li koy sàmm ak di ko aar te loolu mooy diine lislaam ji nga xam ne yàlla suñu borom moo ko tàndal te rasulullahi sallallahu jàngal ñu ci ay waxam ak i jëfam anam yi ñu war a dund diine jooju ci suñuy wax ak suñuy jëf ak suñuy biir ak ni ñu ko war a dundee ci suñu diggante ak fu nu fu nu nekk tanu xam xam ne ñu ñëpp ay sàmmu lan ay lanu yàlla def ci biir suñuy njaboot te bu ëllëgee suñu borom day laaj kenn ku nekk ci nun ñaa nga doon sàmm kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati sëriñ bi wax na ne nanu xam ne bis bii nu fi dajale Serigne Touba moo ko digle woon wax ne ñu ko ci santale yàlla ci xéewal ak mayu yaatu yi mu ko jagleel te mu sababoo ci nattu yi mu tàmbaloon ci bis bii seen seen teewaay rafet na lool chakara allahu mashaayakum wa ahsana jasaakum te noo xam ne wootu sëriñ bii nga xam ne mi ngi dugg ci biir waxi sunu borom ji mu wax ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa yaamuruuna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkari ulaika hum muflihun ak li rasulullahi sallallahu alayhi wa wax ne inna allaha yab'athu li haasihi al umma ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha diinaha ci loolu yi la sëriñ bi jotoon digal ca borom mu wax ko ne ko rabbi ashaabaka bil himmati dina bokk suñu borom waajalee waajtaay wu mat sëkk ci yitte ju kawe ak xam-xam bu sell te yaatu ak pësteef bu dëgër ak fit ak jom ak ñàmbaar goo xam ne la ko lal mooy rabbaani goo xam ne dara kooju ko moo tax bi yan bi agsee ci moom dafa jaayanteeg suñu borom ne ko ruugi da bindu ba xam lu mu attan ak lu mu attanul waaye bu ko ruugi attanee jom ji ak fit bi attan na mu daal di jóge xam le ne lislaam rek mooy diine ji fi nekk ndax mooy diine fa suñu borom inna diina inda allahi lislaam ba tax mu wax ne diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu diina jooje nag mooy liimaan ak lislaam ak lixsaan sëriñ bi nag wax na ne ba may dem ci géej gi ñett yooyu ñëwuma ci nabiyul musar ma ci malakul muqarab mu wax ne usub tariqati al bi tawxid waa islaamu bil fiqi wal bi tasawuf moo tax mu wax ne adduhoo ila l bi tawxidi wa ma raitu anhu min mahidi lillahi adduhoo bi tafaquhi billah may leen li xayri si wa kulli qabila lillahi addumo bi tasawufi maha makaarimi al wa huwa chamia mooy yoonu sunna di yoonu tasawuf moo ëmb yu baax yëpp di yoonu di yoonu yeesal tariqatun sunniyatun suufiyatun tajdidiyatun jaamiatun di yoon xam-xam bu am njëriñ ak jëf yu ak ci teggin yu ñu gërëm al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabu mardi xam-xam bu am njëriñ nag la ci jiitu mooy xam sa bopp xam lañu ñu lay defloo ak nañu la koy defloo ci loolu kon nit ki dana xam ne ab jaam la yàllaa ko moom mooy tax mu mën koo jox lépp lu mu am yooyoo yooyoo ko ci moom ci ragal yàlla ak la mu jur moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne al ilmu ma aksaba xasiyata al alim fa man xalaa minha fa jaahilun mulim mu soññ sëriñ sëriñ bi wax nag ne mu ngi soññ mi ngi soñ soññ ñëpp ni mu ko santaane woon ca sàkku xam-xam boobu nga xam ne Sëriñ wax na ne koonoo maan fil ilmi raaxibiina li wa ci man bihi yuqimu diina wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantabi al amalu saalih nag amu na yetti mbir mu jëkk mi mooy topp yàlla te al ibaadatu mooy boole al ijtinaabu al imtisaalu jëfe ndigali bàyyi tere yi mbir mi ëmb na mooy kasbul xalaali mooy daan sa doole ngir dundal sa bopp ak ñi nga jaboote ci anam nga yàlla gërëm ñetteelu mbir yi mooy alxidma te mooy jaamu yàlla ci jaamu bi di leen dimbale ci sa xam-xam ak sa am-am ak sa man-man ngir yàlla ak sàkku ngërëm ci ñoom al al adabul mardi yu nag mooy amit teggin sa diggante ak sa borom ci gërëm ay dogalam mu ñu nattoom sant ay xéewal ak ak ami teggin sa ci sa bopp. ci sàmm teraanga ji yàlla def ci yow fexe ba bañ a def ak mbañ ak bañ a mel lu tax ñu xeeb la wala ñu yeb la ak ami teggin ci sa diggante ak sa borom ak sa moroomi jaam yi ci war képp ku la mag ak yërëm képp koo mag koo maasal ku ne nga teg ko fi nga teg sa bopp moo tax Sëriñ Tuubaa daan waxe dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee gudd fan ne ko dooma fi bàyyi àjjana ne ko ma leen dalal leen wax ne dee leen mooy safaan bi ndax bu jugee gàtt fan ne ko dooma fi bàyyi sawara ne ko matière leen dara leen dee mooy ak tooñ ndax kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du ñoŋ dee leen mooy gis seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla réer seytaane lay womat te seytaane ku mu womat safaan ba la jëme dee leen mooy waxee bakkan ndax ku waxee bakkan ñu tontool bakkan ngeen féewoo te féewoo lu ne xaj na ca dee leen mooy yow fétal te jaar ci ngir ma ndax kuy fétal ku nekkat fuy fii lay mujje tariixatul adabi rahmatu saxiir kal abi wal ummi wa tawxiirul kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa li wa si xaalixin ala al arshi stawa muy muy woote boo xam ne rek jaamixa la dafa am mbootu yu baax ya ko jiitu yëpp ndax sëriñ bi dafa tànq ci ñëpp moo tax mu wax ne a'immati fi lfiqi maliki al ali wa shafii wal anafi wal wal wal xanafi wal anbari tawaalifu saadaati ujaddidu naasihan li wacil si ala midaadi u mirqabi digal na ñëppit ñu jariñ ci ñëpp ba mu wax ne wa amma axsaabu l aqtaabi wa daawaatu saalihin fa adintu lakum jamian fi l bi kulli ma tayassara lakum minha jamian xaytu wajadtumuhu lii mooy woote sëriñ bi ci la tërbe ñi ko wuy si woon jaayante ak moom jébbal ko seen bopp mu taxliya leen bañu ñu set wicc ci mbooleem ay bi bakkat yi jàngo ak jàngoro xol yi biir yi ak yu biti te ca taxliya leen fees dell ak jikko yu baax yi nga xam ne ku gën kone ne ci nga gëne alhaaji Mbàkke Buso di kenn ci ñoo ñii moo seere woon loolu wax ne mosumaa gis taalibe Sëriñ Tuubaa yi ku leen gën ak ku leen gën a yiw mosu koo dégg mosu koo jàng fenn moo tax mu wax ne huwal xaysu huwal xawsu wal miqyaasu rabba xulubana waa wa ajzaamana wal kullu saafin wa naim moo tax alxaadima jaxate kala seere woon na ko la ko jiitu ginnaaw bu ko taalibe murid yi liggéeyaloon ab liggéey mu seet leen gis gis ab yar ak pëstéef ak njub goo xam ne yéem na ko mu bind ci ñoom wax ne ñii ma gis seen yar bi ak dal bi ak damm gi ñu damm seen seen gis bi ak ni ñu yare seeni kàddu dangay ngay defe ne ñu wopp lañu di wër ko leen faj wala ay ñi ay ay néew ji doole ñuy sàkk ku leen sarax waaye ba ñu tàmbalee liggéey bi seen lépp ak njàmbaar la goo xam ne dara rëyut fi ñoom dara yittaw leen te boole ko sellal goo xam ne yéeme na ndax doo dégg seen kàddu lu dul ñuy tudd yàlla te waxtu julli du leen raw du farata du sunna tey du ñu xool lu ñu wërta xool dañuy dumooyu sëgg mu jàlla murabbawna xat xaddu min absaarihim xadda ka aswaatihim xatta yudannu maan marda araadu atibaaw masaakina hummuhum zawu sadaqaatin muqridu rabbihim xarda mu àgg ci wax ne walam talqa minhum waahidun ajnabiyatan tuxaazihi illa huwa atraqa aw oxda wa ma rafahu al aswaata illa bi zikrihim wa ma axaru al awqaata naflan wala farda ñoom ñi la Cheikh Ibrahima Diop almasar yi doon melal ca waxtaan ba wax naan ruxbaanu laylin masaabihu zalaami lahum fi sufi wal musi azkaarun wa awraadu yadluuna daban kitaaballahi summa lahum ila almasajidi tardaadun fa tardaadu al islaamu diinuhum wa shukru daydanuhum wa sabu wal kullu sajjaadu ñoom ñii nag ginnaaw bu leen sëriñ bi defaree ba ñu gën ñëpp ñoota tasaaroo ci réew mi nit ñi gis ñoom defaru sëriñ bi ba tax ñu xemmeem leen jébbalu ci ñoom ngir bëgg am ngërëmul yàlla ci ñoom loolu yi nag mi nga tàmbalee ci ñi sëriñ bi njëkkee yawi muy ba muy dem ca tukki ba ca nattu ba ak bi mu dellusee ba tey ji tey ñuy ay millions ci biir réew mi ak ci bitim réew sëñ ci ay téeméeri téeméeri dëkk ngir sàkku xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéey nekk itam force boo xam ne ñëpp leen bàyyi xel ci diine ak xam-xam ak koom-koom ak siyaasatu ba tax na Tuubaa gii nga xam ne mooy capitalu yoon wi doon doon jëm waaye àdduna fépp fu ne ay nit di fa jóge di nemmiku si dëkk bi te ku fi ñëw faw nga dellu si waat ndax yëg-yëg bi ngay am sa digg sa borom te loo fi ñaan te sellal ko yàlla sunu borom defal la ko moo tax Cheikh Maodo Fadil ci basiratum tuxal si màggal gi Touba ngir bëgg ñëpp jaruñ ci dama ko waxee woon dëggal la Serigne Touba waxoon ne nawaytu sukrahu la daa daari waa wa inde Touba ya bi jismin wa xilaam alaya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaratil minan yàlla barkeel ko boo mujj nekk dëkk bi gën a rëy ci Sénégal te li wax fu laa ko teg li fi nekk ci ay daara mën na junni ak juróom téeméer li fi nekk ci ay juma juma yu julli ajjuma mën na téeméer ak juróom-benn fi nekk ci ay jàkka ay téeméeri téeméer téeméer la kon la Serigne Touba waxoon ne wàccal goo gis ma bind ko fekk na yàlla suñu borom defal ma ko te ma waxoon ne wal tusbitan fiihi jamaatun tuxim alsalawati alxamsa daban yaa xakim wajhalu daban maskana tibaaci li sunnatin la maskana tibaaci li fi nekk ci ay daayira ak i mbooloo yu yëngu ci xam-xam ak culture ak sociale kon li sëriñ bi waxoon sëriñ Bay Sarr ndax dafa nekk ci njaarim sëriñ bi di waxtaan sëriñ Bay sëriñ Bay Sarr ko ànd ak tëgg mu rëy rëy ba coole bari ba kenn déggatut ñëpp xaw a jaaxle sëriñ bi wax ne bàyyi leen ko mu agsi xanaa bu agsee dana wax li mu ci jublu ba sëñ Bay Saar agsee sëriñ bi ne ko Babacar ana ah, li nga doon def loo ci jublu mu ne ko Mbàkke dangaa xare ba daan te bàkku wa te loolu mun ma ko muñ moo tax may bàkku sëriñ bi ne ko Babacar danaa bàkku de sama dëkk ba ca Touba ak sama jumaa ja fay def mooy sama bàkk kon nañu wéy te bañ a geestu ndax am na lu doy sëkk kon bis bi mooy sunu bis bi gën a rëy moo tax nu moom suñu bopp moo tax nu jot suñu bopp ba tala jaamu yàlla ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxe woon ndax bu pexee tubaab bi sotti woon kéefar not ci réew mi lislaam fay ba faww moo tax sëriñ bi daana wax ne yoon wi attan ne lépp ba mu des attanasuru moo tax mu wax ne law tanassartu la daxaltu naar wala xiyaas billahi taala sëriñ Tuubaa yàlla doo ko defal ay xusuusiyaat yoo xam ne da koo jagoo te bokku ko kenn ci nit yàlla yi moo tax mu wax ne kiimaanu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kulliyati mu'jizatun ta'axarat wa xayra xayraatin ladayka duxirat dafa waroon a feeñ ci njëlbeenu jamono yonente bi sallallahu alayhi dax daxañal ko xeetam bi ba waa mujjug jamono bu demee ba bu demee ba àdduna lëj ba li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci mujjug jamono feeñ ci wàllu bon bon ak yàqu seytaane ba seytaane bàkku ba jàpp ne daan na wax ne la mu bëggoon sotti na la axuyannahum ajmahin summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajid aktharahum shakirin mu dëppoog sant yàlla gi ñu def ca booba la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di génne mbërëm ak ci maanaam googu di Serigne Touba roof ko mbootam xamal ko jàngoro jamonoom wan ko fi mu war a jaar fi mu war a jaarale nit ñi ba ñu mucc tey ak ëllëg li yonente bi sallallahu alayhi di rënki mbaram mbërëm ne le saytaane di njembe mbërëm moo tax sëriñ bi daana wax ne maak tubaab yi dañuy njëkkante xol koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw waaye koo xam ne njëkk nañu ma ci moom ñàkk naa ko bu faw mooy alxadaratul xarbiya mooy civilisation occidentale moo tax mu daa wax ne yoon wi yoon wi nangu na lu ne ba des a tanasur te mooy nurul nurul tubaab yi ci pas-pas ak jikko moo tax sëriñ bi mu ñëwee tubaab bi indi seen système tëral ay yoon yoo xam ne ku ci jaar sànku tey ak ëllëg sëriñ bi dafa xàll aw yoon ca wegga muy jëmmal asiraatal mustaqim mu yoon wa sallallahu alayhi wa jaaroon mu ràppoon mu ràppoon mu dekkalaat ko xalaat yoon yi moo tax fu mu fekk tubaab bi jaar day rëdd yoon ca wet ga mu nekk badil ba ñu indee model boo xam ne ci weddi yàlla ak sàmm sa njariñu bopp ak jëfandikoo néew ju doole yi ca la taxaw sëriñ bi dafa indi yoon woo xam ne ci yërmande ak gëm njëriñ mbindeef yi ak xidma ak fàtte sa bopp bi tubaab yi indee modernite jàpp ne balaa kenn teg faw mu jaar ci ci liñ tëral te la ci jiitu mooy fexe ba dox diggante nit ki ak boroomam dagg buumbi jaam yi doxan seen digg seeni morom buñ ca yemoon sax mu baax waaye dañu caa boole dagg buumu jaam gi dox seen digg seen borom ba loolu yób ba loolu yóbbu leen ñu sankute gu wér ndax dañoo jël nit jox ko cëru palaasu yàlla de ko humanisme loolu indil leen jafe-jafe yu seen diggante ak seen borom ak seen diggante ak seeni morom wa man arada an zikri fa inna lahu maisatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyamati ahma moom la Sëriñ Tuba di wax naan waaye Sëriñ Tuba indi na loo xam ne kenn mësu koo gis kenn mësu dégg te ba adduna tukki day ànd ak jamono bu faw mooy shahaadatu daare ni te mooy matlabul fawsayni di texe ak adduna ak alaxira yaqulu ahmadu ila saada yadduul mala bil ilmi wal ibada moo gën a yaatu fuuf li ñu tubaab bi indil ci yokkute te lépp lu nu indi danga xam ne li sëriñ li sëriñ na ko boole ci indi leneen loo xam ne seen xel du jëm a sàgg faw moo tax sëriñ bi iteem yëpp moo doon fexe ba nit ñi delloo ci seen borom ilallahi bil qurani wa sunnati allati hadani saraftul kulla wal qalbu xaasiun bëggoon nit ki jël àdduna def ko ab yóbbal bu koy jëmee ci boromam axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan wan lil hawa wali safal jinaan min ka tazawudi ilal jannaati bi maa min al moo tax bi tubaab bi indee courant ca kër gu mag ci njaareem sëriñ bi dafa bind ne loxoo xitaab yaa amatal sa si la daa bu xoatee la ci bala balada mu wax ne bayit yi moo tax ñu taal fa làmp yi waaye tubaab yi ko fi def bi ñu ko fi def juuluñ ci dara lu dul walbati xel yi jëmale leen ci attanasur moo leen ko tax a def teg ca ne wa haza taalimun min man yaxalamu xaainata al ayni wa ma tax fi sudoor nee yàlla mi ma xamal li ci seen biir xel yi xam li ñu ci li ñu ci jublu moo ma ko xamal yàlla mi xam li ci seen biir xel yi moo ma xamal lii ne loolu jublu moo tax mboolem lu ñu indi luy luy luy tekki ne nit ki dafa war a am liberté jubli gi lépp ma dox sa diggante ak sa borom moo tax lu nu indi na ko julli bi jël def ko jumtuwaay bu ko yóbbu ci ci boroom liggéeyal ko yàlla ngir loolu mën am nag Sëriñ Tuubaa dafa fexe ba jël suñu xol yëpp dara bañ cee nekk lu ak iraadu saadixa def ko mën xëj mën xëj bu ma jaarale nit ñi bu muy jaaree ta xol nag mooy buuru cër yi ba nangoo rek cër yëpp nangu alqalbu kal maliki fil aadaani fil aadaai matee yemil tamil ma aqtidaay tubaab yi bi ñu dikkee li ñuy li ñuy jëkk def mooy àllumanatul xayaati te mooy wuññi mbalaanum diine ak sellal ba dara du ci des te mooy yitte nit ñi du weesu aalamul mulki di dem ci aalamul malakut wala aalamul jabarut ni ko suñu borom waxe ne yaalamuna zahiran min alxayaati dunia wa hum an al axirati hum xaafiloon moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne tubaab yi yàlla suñu borom da leen may ba dañoo xam-xam adduna ba luñ ci xamut rek amul njëriñ waaye àllaaxira da leen ump ba luñ ci xam rek amul njëriñ moo tax mu leen tudde abidul maa i wa mooy nit ñoo xam ne benn dimension lañu am te mooy matière seen yitte jëpp mooy def nit bàyyi ma ne ko waxe waxee ne ulaa'ika kal an'aami bal hum adallu sabiilan li ñu gëm mooy wa mal xayaatu dunya illaa lahwun wa lahbun maa yuhlikunaa illaa dahr kon boo leen doon waar den wax ci seen borom den fàtte ci Serigne Touba sax dañuy jàpp ne yow mii waxi démb ngay wax Serigne bi mu dikkee ngir yeesa dina doomu soxna bu ko doomu soxna indilee alliwo mu xool ko ne ndaw lu rafet doomu soxna ju mokkal bind ko ba mu rafet dara gënu ko kawe waaye fexe ba alliwo suñu borom ja buy bind nga fexe ba xam la muy bind loolu ko am yitte ju kawe loolu moo ko war a def te loolu moo war a ittee nit ki foofu la jëmewu nit ñi ba seen bët jëm kaw bañ xool suuf ndax ñu mën a tabax xadaaratun malakutiyatun ala wahril ardi ni ko alxuraan waxee ne inni jaailun fil ardi xalifatan nit ki ma def mission boobu mooy almuridu saadix moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha di faral di fàttali waxtu ne di wax ne almuridu saadix malaayika yi ñoo seeni nawle ci pas-pas ñooñu le sëriñ bi tabaxoon ba mu ba mu wootee Mbàkke Kajoor kon nag li ñu war def li ñu war mooy sant yàlla mi nu boole ak moom ndax mas naa wax ne sant leen yàlla ndax ëpp leen yéesu leen gimiñ jàpp leen ëpp leen mooy ñëw leen ba dem ma door a ñëw yéesu leen itam ñëwum ba dem ngeen door a ñëw gimiñ jàpp leen mooy dajewu leen am ba noppi wedd ma kon nag képp ku ko yaakaar na xam ne moo la tànnal boppam ndax nee woon na xam ngeen foo ma àndee ak yéen ñu ne ko déer mbàkk mun na yow ma ala alastu bi rabbikum ba nga xamee ne suñ borom fa la wax ne alastu bi rabbikum day wax ju gudd waaye Serigne Touba nee na foofu laa tànne samay taalibe kon nanu ko jox sunu lépp te bañ a desal dara ndax nee woon na ku ma jox sa lépp ma téye sa ku ma jox sa leen téye ma joxoon ma defaral la ko te ku sellal sa pëstéef loo dugg mu fekk la ca te ku ne mën nga koo natt ci boppam te Serigne Saliou Mbacke daana wax ne yaakaar ju tas miinu yoonu ko Serigne Touba li ciy firnde rek mooy daaw. bi wéradi gi amee ci àdduna sëpp mbooleem du doon xew-xew ak ci ndaje ñu tere ko men ndaje amatu ci àdduna ba Cheikh mu Mountakha joxe ndigal wax ne dara mënta te ñu jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa ñëpp amul dogu jëfe ndigalu Sëriñ ñu màggal ba jàll dara fekku ca bekkan benn bakkan rotu ca daa màggal gi ak siwaat mu yëkkati ko waat sëriñ bi waxaat la mu waxoon ne nañ jëfatu ko ndigalu Sëriñ Tuubaa mu wàccaat màgget gi jàll mu yëkkati ko waat mu wootewaat bis bisu zikrullahi ñaan yàlla na maa ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mbas mi tàggoos bu faw boobu ba ndëgëni bu fi desee it néew na doole ba kenn ragalatu ko kon la Sëriñ Tuubaa waxoon ca pes ba rek aynamaa takuunu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fii buruujin mushayyada kon Sëriñ Tuubaa tënku ci ndigalam rek mooy la am solo ndax ku ko def rek yàlla dana defal li nga bëgg lépp te yow yàlla suñu borom ñi nga xam ne ñi ngi may liggéeyal di njëkkante jéem a liggéey na ngi leen tabaxal ay kër ci digg àjjana inna la siina inna li siina saaraho li xidmati fa lahumu diyaara ustat jannati yàlla na nga faj aajo ñi sax ci di ma liggéeyal te defal leen mboolem lu ñu bëgg wax di xawaaija li siina daamu fii xidmati wa hab lahum maaraamu waxoon na ne at yi mu sax ci gelwaa yàlla barkeel na ko ba mel na saxuk mboolem yonent yi ak wàllu yi ak borom xam-xam yëpp nee na li mu sax ci diir bu àdduna rek ginnaaw bu mu bàyyi ko galwaa barkeel na ba mel na laytul qadri mel na ne gaalu sayduna sayduna nuux nga xam ne képp ku ci dugg mucc raw ba faw Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ubashirukum bi anna allaha tabaraka wa taala xassakum bi maa yaxbitukum bihi kathiru min al min min ahlil xasi faskuruhu ala zalika mubarak yàlla suñu boon defal na ay taalibe loo xam ne képp kuñ jamonoontee dañ leen ci ñee loo xam ne tawfeex la joo xam ne nañ ci sant yàlla bi leen ko defal nee na képp koo xam ne aju na ci man tam yàlla suñu boom daan la aar yaxmi ilaahi bin nabiyyi kulla man bi yelu zafalahin wa aman waxoon na itam ne add xaltu nafsi wa jamii ahli fii jëy bi afdali wara sil fadli nee na jël na jëmmam ak mboolem ñooñam tàbbal leen ci jibe rasulullahi sallallahu alayhi wa jël na kon nag xam naa ne waxtu wi du gudd dañ koy tëje rek ñaan gu Serigne Touba ñaanoon ndax sëriñ Touba dafa waxoon ne ñaari baat rekk la te Serigne bi kat neewoon na ma nañ fexe ba lu topp ci midi rek waxtaan wi jaax Serigne bi dafa waxoon ne ñaari baat rek la allahu akbar ak laa ilaha illallah mu ne allahu akbar mooy lu la fekk leen lu ne lu ko gën a war ñëw na mu ne laa ilaha illallah mooy foofu mën di jëm te du ma daal foofu doo fi jël dara kon ñu ja ñu ñu jeexale ko ñaan gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa di si ñaanal jullit yëpp naafiu bi yanfa'il ibadal mu'minin wal muslimina wal muslimin wal ibadal muhsinin laka laka ja'altu diinaka al islaama wadiatan faltakfina zalama ajib bila raddin wala taaxir wa indaka ja'alni surur al xayr awda'tuka al ummata fakfina rukun fakfiha rukun lizzalimin hablahum fiika sukun ورد مكائد العدا لهم بلا تزلزل فينا وشعيا نقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا مكرم يا بطت بيني وبين المجرمين ففيك وسع للعيال المسلمين فككت يا قادر يا مقتدر رقابهم من كل ما يكدر يا حي يا قيوم لاستجبت وليك ولك يا رب الورى قربت حديت عداك بشر العيال يا من كفى الحكام والأقيال loolu firndee na sëriñ Touba kon mboolem lislaam jëpp la jaboote ñëpp la jàppoon ak jabootam kon ñu jeexal fa kàddu yi jox Serigne bi mu ñaanal ñëpp ba déwén ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Madou Bachir ñu déglu tuuti Sidi Maxtaar dafa am lu muy lu muy fàttali. waa ñu ngi sant bu baax sëñ Mouhamadul Bachir ci kàddu gu jot gi te rafet di fàttali ne. màggalu julli géej gi. àllarba lay doon. le 21 àllarba le 21 di ñëw mooy màggalu julli géej gi ñu koy saytu ñu koy fàttali wóllëre yi ak mbokki taalibe bi yëpp ci njiitul Serigne Youssou Diop xisbu tarqiya ak soxna Sooda Xumma. sëriñ bi sa mbokk di sa doom mi ngi fii Amin Mbakke amin amin amin Mbakke yàlla nañu ko teewee déwén Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér wal qalami wa ma bokki jullit yi compagnie C3S dellu siwaat ànd ak yéen nam ko baaxoo defee ci jongante bind alxuraanul karim édition ren bii nag dépôt yi ñeel candidat yi fas nañu yéene door ko benn pan ci weeru octobre mu war a jeex fanweeri fan ci weeru octobre yow mi bëgg bokk ci jongante yi da bind am xët ci alxuraanul karim sa tur sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci boutique c 3 bu la gën a jege ci biir Sénégal wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bii di candidat point yaatal mbind topp tegtal ya lay jaarale ci yoon wi tax ñu mën a jot ci sa dépôt coppite ya ñu ci indi képp ku bëgg a bokk ci jongante yi say at warta romb ñeent fukki at moo waral képp ku jàll ci xaaj bu njëkk bi da ngay indi këyit guy màndargaal say at photocopie d'identité wala et cetera ñi bëgg bokk ci jongante yi te bokk ci région yii Matam Ziguinchor Tamba Kolda Sédhiou ak Kédougou mën nañoo dem ca boutique C3S ba nekk Ourossogui wala ba nekk Ziguinchor wala Tamba wala Serigne Ousmane Dia ma nekk Ranérou 77 784 15 46 wala Serigne Ahmed Tidiane ma nekk Matam 77 424 23 321 ku ci bëgg ay leeral foo mën di nekk ci réew mi ak bitim réew 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 alxuraan ay nga neel ku ca am ak na meel yàlla dal koy goreel anta bi ni'mati rabbika bi majnuun